dañoo jàpp ne c'est non alcoolisé mu am ne serait-ce que zéro virgule zéro zéro cinq pour cent d'alcool état bi daf cee war a daf cee war a daf cee war a daf cee war a def ay mbiram. danañ interpeller ci loolu ñu gëstu loolu ba xam parce que aussi c'est de la consommation te nos enfants sont exposés boo leen jox n'importe quelle boisson aussi. ci milliers xaw ma milliers lañ koy xaw ma ñooñu dañu leen di war di wóolu di leen sifaay ba ñu tooy parce que dañuy yàq xale yi. gis nga dañ koy feccee ak colko bi ñuy sol xale yi bu ñu leen gisee dañuy foog ne que fecc boobu dafa baax man ku nekk suñu kër daf koy def Fatima Zahra daf koy fecce. non mais fecc Fatima. fecc moom fecc moom nu mu tuddati ndaw si. tur bi Ndeya. naam. fecc moom depuis la nuit des temps. mais mi ngi baaxul. non mais mais non mais mmh. non fecc yi non mais c'est fecc nu mu gën a nu mu gën waaw nu mu balaa ngay balaa ngay tëj bëggoon naa wax ci ci ci ci ci concours concours concours général bi nga xamante ne moom moo amoon démb. waaw les lauréats très rapidement. dafa am dafa am rek ñaari ñaari wax ñaari discours yu nga xamante ne. Mm. dama ci bëgg dama ci bëgg a wax tuuti rek les discours de Ousmane Sonko benn bi. sur euh, li nga non d'abord ci li nga xamante ni moom concours général je pense que Sénégal war nañoo toll foo xamante ni dañoo war parce que Ousmane Sonko a fait un exploit dembou. exploit bi mu def recevoir na ku nga xamante ni dafa jàng alxuraan au moins waré na pour une première fois Koku wane na wan na ko ne ñi jang nañ jang nañ français bokk nañ concours concours général bi mais yow aussi yow mi nga xamanteni yow ya jang alcorane maîtriser ko yow ci nga bokk. ma jàpp ne dañu war a boole ci biir concours général bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo jàng alxuraan comme ni ñuy amee ay concours national ñoom it ñu santi seen bopp ñu bañ a distinguer concours général bi ñoom ñu bokk ci biir quoi mu xam mu am distinction comme ni amee distinction ci ci ci matière scientifique matière yeneen yi mu am alxuraan ci ci ci ci distinction bi beneen bi mooy dafa wax benn benn benn mbir ci li nga xamante ni moom mooy réguler les réseaux sociaux euh, euh, suñu invité bi euh, wax na ko junj na ko sànq mais c'est-à-dire lu nga xamante ni Macky Sall yàgg na ko bëgg réguler mu mu mu mu mu metti la boo xoolee sax mu të boo xoolee sax ci jamono bi ñu fi tëjee internet bi da ngay gis ni ñu bari dañoo dañoo ne recul démocratique la ma jàpp na nag ni. tey war nañoo comme am nañ data center boo xamante ni Sénégal ko moomoo boppam Sénégal war na mën a maîtriser li nga xamante ni moom mooy les réseaux sociaux xale yi nga xamante ni dañuy jàng TikTok bi ñu am ay contenu yoo xam ne yooyu rek la ñuy gis mu am heure boo xamante ni bu jotee bépp xale mooy de dix-huit wala bépp élève boo doo am accès ci TikTok wala ci YouTube la Corée la réussi Corée sax sori na mais Euh, demal euh, Maroc gi wala wala wala benen dekk fii nii c'est-à-dire du n'importe quelle heure wala n'importe où ngay taxaw di def sa live wala ngay def sa wala ngay wala ngay wala ngay def ay vidéo donc je pense que tay suñu autorité yi war nañu vraiment gëna dur sur les les les choses euh, comme ñom mom lañu ñom nak mom moom réseaux sociaux la utiliser ak ak yenn invective yi gisoon nañ ko ci ci ñom ci réseaux sociaux yi ba yegg fi ce sera très difficile pour nous euh, pour nous, pour nous, pour nous, restreindre ces ces ces libertés là mais man damaa jàpp ne nañ ko nañ ko def parce que Sénégal nous ngi tendre vers boo Le gisee lu bari lu fi amoon dérive réseaux sociaux il m'a monté tax am ma jàpp ne nag ak lu mën xew war assainir ce milieu là te ñu bàyyi presse bi nyom ñoo ñoom ñoo gën a c'est pas la presse en fait quand on dit que presse bi moom réseaux sociaux yi gën a gën non non c'est pas c'est pas il a parlé de la presse en disant ceci

il a premier ministre mu dog ko wax mais ñun dañ ko yàgg a wax am na ñoo nga xamante ni ci jamono ñu daan régler pénc mi nga xamante ne ñëpp dañuy toog ci pénc ñu wax am ñoo xamante ni ci dëkk daanuñu wax am ñoo xam ne ñu ngi wër di wax seeni maam ak seeni maamaat boo demee seen cosaan bu ñu taagaan ci pénc seeni maam daanuñu woon jël kàddu daanuñu woon wax daanuñu leen woon jox autorisation ñu wax donc dafa amoon ay jamono ñoo xamante ni ñoom la ñu autorisé woon ñu wax ak ñoo xamante ni autorisé wuñ leen woon ñu wax moy lama la waxoon kérok ci manam il faut que ñu wat ci enseignement religieux bi yun ci yàlla saa daf na man kaana yawmin billahi wa yawmil akhir fal yaqul xayran aw li yasmut ku gëm yàlla ak yonentam da ngay wax lu bax wala nga nopi mais tay Sénégal bo mënul wax lu bax sax yaa ngi jema xol lu safan ci nit ki pour nga wax da am ñu rafet ñu wax donc am ñu rafet ñu nopi ñi nopi mais c'est clair non man je pense que mbir la bu nga xamanteni autorité yi war nañ ci def sen kem katan pour que réseaux sociaux yi ñom ñu maîtriser ko contenu yi ci dox ci xalé yi ñu xam ko xam deug deug lan la lan la xalé di di di utiliser. am solo donc euh, fi lañu ñu yem ak yéen ma bàyyi euh, Ndeya mu tàggoo. merci beaucoup Boury di am contentement rek ci bokk ak yéen plateau bi di jox téléspectateurs rendez-vous euh, vendredi incha lañ fi ñëwaat. incha allah ak euh, rubrique euh, société euh, Momo Cissé xorom ci cin ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. waaw maa ngi lay jaajëfal bu baax dafa am koo xamante ne dafa jël benn xaram sama benn xarit xaritam dafa am benn xar mu tuddee ko Cheikh abu jàlloo abu Diallo. xar bi waaw xar bi abu jàlloo lañ ko tuddee. Mm. donc maa ngi woo Abou bu fekkente ne jotam may na ko mu dem ngénte xar bi. yobul ko ay valise ak. c'est une très bonne question. bon de toute façon après loolu dinañ ko xolaat nako dem de toute façon mom nako dem nako dem nako dem ngénte ji am na ci xar donc euh, voilà dila jaajeufal bu baakha baax di jaajeufal ñepp ñu nga xamanteni ñoo ñu doon seetaan.